borom tuuba nee na jigéen yàlla da ko mooñaaleeg ñeenti jukko muy dañu lay tooñ njëkk laa mer duñ la yërëm duñ la gërëm daldi ne na képp ku leen bëgg a yor da yor ñeenti jukko yi mooy di leen muñal di leen mënal di leen jéggal tey jéllale